auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala nabiil karim sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi sawi ridwaani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul xoqdatan min lisaani yaxaqu xawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu gannaaw ba ñu leen nuyoo ñoo ngi dellusiwaat ci ni ngeen ko baaxoo xamee rek saa su nekk ñuy ñëw ci di ànd ak yéen ci di fàttaliku euh, liggéeyu mag ñu baax ñi nga xam ne wala ñi nga xam ne ñu lañ fi bàyyi ñuy ak njaboot ñuy dox ci jéego yi mag ñi nga xam ne dañ fa nekkoon doon def lu baax ba yàlla dogal ñu wutu leen ca loola continuer ko di ko doxal te muy li sëñ Tuubaa bëgg te bëgg ku ca nekk te nekk la woon ca te ci nekkoon ca te ca daan soññee saa su nekk kon nag ni ñuy def bu nu gisee lu nu naqari ci yoonu murit euh, ak fu mu fa mën a xewee mu jaral nu jóg euh, jël suñu matawaay kent lay kattan euh, yëkkati suñu kàddu ba àdduna sépp dégg ko kon nag bu nu gisee nag koo si ma nga yoon wa di wax dëgg yàlla dañoo war a jóg jël suñu kàddu yëkkati ba àdduna sépp maase ko dégg ndax loolu mooy li nga xam ne moo tax nit ñi mën a xam Euh, kan mooy sëñ Touba ci kennal ko ak xam li bëgg ñu di ko ca jàpp tey ñu ñëwaat rek ci poñ bi nga xam ne duñ na gulet muy di waxtaan ci jëmm ju baax ju fi nekkoon daan rafetal bokkoon ci suriyatan tayyibatan tu jaddidu nax ja nabiyal Mustafa tattaxidu bokk ci jabootu ki nga xam ne moo fi jëkk a wutu Cheikhul Xadim ca mat ga ca nite ga ba lëggéeyal sëriñ Touba lëggéey boo xam ne tey murit bu nekk gis nga ne tey jii bu lëggéey boobu amutoon Serigne Touba des koy dégg rek waaye des su mën a jëriñu ci moom te kooku nag mooy awwalu xalifatu Cheikhul Xadim muy a Cheikh Moustapha al di ki ko fi jëkk a wutu di ki nga xam ne Sëñ Touba da ko waajal ci waajtaay yu mucc ayib ci wéetaay ak li nga xamante ni si euh, xamal na ko ko ci wàllu xam-xam yar ko ba mat lu mu doon sëkk ba fan yi ñu génn rek gis ngeen ne ñu ngi dem doon def màggal li nga xam ne moom la ñuy wax Ishruna Muharram muy lu rëy lu mu ci def ci ak nité à de 40 ans ba tax na tey murit yëpp tey euh, seen xol sedd ba tax murit yëpp tey bu ñu amee jàmm mën a xam kan mooy sëñ Tuuba liggéey boobee moo ko waral ñu xam ñu nag ci kenn ci ak njabootam ku ñuy wax sëriñ Mbàkke Muhammad muy borom Taayif ak bayla di koo xam ne ñun mooy sunu idole ñun mooy sunu référence dañ ko bëgg lool te liñ ko bëggee mooy ay jikkoom yu rafet ak baaxam ak ub taalubeem ak noppeem mboolem qualité yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa jàngale na boo ñëwee ci Serigne Mbacke Mouhamad da ko ca fekk te loolu du lu ñuy waxat ku ko xam da ko gis képp ku dem Taïf Mbacke Guèye da nga gis ne lii ma wax wéetuma ci tey it wa ma sahid naa illaa bi ma alim naa ba tax na tey bu ñu ñëwee nag tey fas yéene tàmbali ci ki nga xam ne daaw defoon nañ ci waxtaan ñu ñëw fas yéene mottaliwaat waxtaan woowu muy kan muy doomam ju tedd bokk ci sët ya sëñ Tuubaa tànnoon bi muy wax naan wahab lana surriyatan tuddimu alxamala saaliha yaa xadim ak surriyatan tayyibatan tujaddidu na ya nabil mustafaa taxidu muy kan muy cheikh Moustapha al Karim ibnu Serigne Mbacke Mouhamad koo xam ne si ku jara ñaanal la waaye ku jara ndax xëy na at yi néew na lool ci ay bokkam waaye jëf ji rëy na lool ba romb ñu bari te ni jëf ji toll yi ni la ngor gi toll li jëf ji rëy rëy dafa mën a dafa méngoog ngor gi ndax am gore loolu as gor rek moo ko mën doomi gor dongit moo ko mën ndax bari na lu nit di yëngal di ca tuddoo sëñ Tuubaa te facca sëñ Moustapha Mbacke mi àgg ak góof ndax sëñ Moustapha Mbacke ñëpp xam nañ position ci yoonu murit ndax mu yëngu woon tey yoonu murit yëpp dana yëngu ndax lim ci dirigé ci responsabilité jëpp mën a keneen yor na ci li ma xam man te man koo seere cinq boobu yi mu wutoo waajuram mu tedd wu baax woowu yi nga xam ne xaritu ñu baax ñépp la woon amoon qualité nekkoon modèle boobu ba léegi kenn mësta dox ba gis ko mu def lu ñuy xeebe sëñ Touba wala mu def lu ñu yabe sëñ Touba wala mu def lu ñuy yabe Cheikh Moustapha wala ñu def lu ñuy yabe Serigne Mbacke waajuram mu bokk fu baax nag foo xam ne daje na ceet mboolem ñu baax ñi nga xam ne tey am nañ cër ci yoonu ma cër nag bu ñu ko waxee yaakaar naa ne xalif général di Mouride kenn ëpp ko cër ndax responsabilité yoonu Mouride yëpp moo ko yor kan la sëñ Mountakha Mbacké waaye sëñ Mountakha comme fi wutu sëriñ Sidi euh, Mokhtar te sëñ Sidi Mokhtar keroog bi nga xamee ne Cheikh Mamadou Moustapha toogee na xilaaf ak sëñ Mbacké Mouhamed wax na kàdd koo xam ne tax na képp ku di Mouride te am xol bu rafet ci set wecc te weex tàll war nga ko ëmmal ak cofeel ndax dañ na wow ci kong la yem te sëñ Sidi Muxtaar ñëpp xam nañ ne nitu baatin la ndax mat sëkk doon lim doon xam suñu muy teg tànkam fees dell palaasam moo tax sëñ Tuubaa tànn ko def ko ñaareelu xalifaam ci sët yi kon bu waxee ne Mouhamadou Moustapha nii fii mu toog nangu naa ci dogalub yàlla ne suñu borom moo ko def kon man nangu naa ci dogalub yàlla loola tax na nun ñu gën a takkaat suñu digg fonkat ko jàppaat ko ñaanal ko mu sut képp ku ko fi ku mu fi mas a wutu aw fan ndax bu fi bu guddee fan rek li sëñ tubaa bëgg dana am ndax la sëñ Touba digle woon ne mbooloo mi ma leen booleel teg ko ci seen kanam ngeen war leen a indi ci man nekk ci la ngeen war a nekk addi yi ñu yëkkati di leen ko jox maa leen ko neexale lew na leen doom loola mel na ni sëñ Mouhamadou Moustapha mii dégg na loola ndax ni jamono ji rëjee ak ni jaxasoo ak ni nit ñi bëgg daraja ak ni nit ñi bëgg alal ba tax na ku ngeen gis mu def lu mu def benn daraja moo ko ko jox wala daraja ju ñu ko jox la wala daraja ju mu yóotu wala alal yooyu yëpp nag fekk na ko moom mu yor ci ay magasin yu dul jeex ba pare na dégg li gën a yéeme te gën a baax te ñu gën ci naw nit muy nit ko woyof ba pare diis ganna ndax diis gan weesuwul ñun la yowee doom yi sëñ Mbàkke Mouhamad yowee sëtu Cheikh Mamadou Moustapha loolu diis mënu ko weesu ci baatin waaye woyof gi nag mooy nga xam ni lii luñ la dénk la nga wane yoon woo xam ne bëgg ngaa jëriñ ñëpp te bi ci njëkk mooy am kilifa te am na kilifa te nangu na mu yilif kon la sëñ Tuubaa waxoon ne na ngeen di am kilifa te nangu mu yilif leen loolu man gis naa ko ci sëñ Moustapha Mouhamad mbooleem képp koo xam ne kilifaam nga jox na la cër ba mu la war a jox waaye li gën a yéeme nag mooy di jariñe di jariñ nit ba pare téye saw làmmiñ noppi te sa làmmiñ du ko tudd muy lu jafe ci àddina bi loo xam ne ñu bari mënuñu ko doo ko gis mukk ci lu ñàkk fayda doo ko gis mukk ci ay caaxaan doo ko gis mukk ci loo ko te gis bokk na ci li ma ko nawee gannaaw bu sëñ Modou Moustapha jàllee waaye gannaaw bu sëñ Cheikh Mbacke jàllee gannaaw bu sëñ Mbacke soxna loo jàllee ñii ñoo tax ma gën a fonk Cheikh Moustapha Mouhamed mooy sëñ Touba lam ko ca nekkal ak lam daan digle ku ko nekkal mu nekk ci ba mu sëkk benn ñaareel ba mooy kii nga xam ne nitug caaxaan du nitug muy sëriñ Moustapha moom Saliou sëñ nga xam ne képp koo gis ne jox na ko boppam képp koo gis ne boole na ko ci boppam jàppal ne kookee ku gëm sëñ Tuubaa la ku am qualité yu baax la te gis naa ne noonu yi la def kii nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ahmadou Moustapha muy kii nga xam ne mooy sëñ Ahmadou Mokhtar Mbacke yàlla na fi yàgg te ñëpp xam nañ diggam ak sëñ Moustapha Sall te sëñ Moustapha Sall wu fépp fu mu dem xamal ne sañ Tuubaa fa ne donte pël ba ca Ugo la sax bu gisee ngay def ci sëñ Tuubaa loo xamee ne nii lu sëñ Tuubaa digle la daf lay fonk daf lay boole ci boppam te ñëpp xam nañ ne fa mu teg sëñ Ahmadou Mokhtar fa la teg ndax taal na otom dem na ba nigoo ji daru daru salaam nigoo ji mu dem moom mii Cheikh Moustapha mii ñuy waxtaanee nga xam ne ñoo bokk tudd Moustapha muy sëñ Modou Sall lañ ko tuddee sëñ Moustapha mii moom sëñ Modou Mbacke Soxna Lo summi ay dàllam dox ak tànkam ci wayaf wayaf ak taalibe ga dem ba nga xam ne yàlla dogal na mu gàttandu ko indi ko sukk ci wetam mu wóor na sëñ Moustapha Saliou mu fépp fu mu dem xam nga ne kii nitug nitug yàlla ngi nii te nit ki wax ci lu baax ci nit dafay tax yàlla dimbali la benn kooku kooku ñaar mooy ñaareel bi tax ma jàpp ko ñetteel bi mooy sëriñ Cheikh moom sëñ Aliou Mbacke di sëtub sëñ Modou Moustapha di sama lépp nag nga xam ne ku ko xam-xam ma ku ko gis-gis ma dul benn du ñaar dama gis fu mu seereel Cheikh Moustapha nii lii may wax ci moom muy ak taalibe ak noppi ak njariñ li gën a yéeme sax nga xam ne daaw 11 mars wala 4 mars bi yàlla dogalee sëñ Cheikh Aliou génn këram dem fekk Cheikh Moustapha mii fa mu nekk nga xam ne keroog ba mu demee adduna sépp teg nañ ci bët te loolu xam na ne nit ku dis mënu ko nit ku woyof toy moo ko man dem fekk koo xam ne si yàgg waajuram yéen a bokk lépp ngay bàyyi ci moom woyofal sa bopp am xol bu set wecc te rafet dem seeti ko kooka yi fu muy teg tànkam xam nga ne foofu sëñ Tuubaa la kon ñëpp ñoo marché doo di jóom kon lii ma ci yëg moom la ay bokkam yëg moom la ñu ngi bëgg sëñ Tuubaa yëg ba mu demee sëñ Moustapha it wàcc ca toogu gam toogoon gàttandu ko indi jox ko ne ko toogal fi bang bi nanguwut a toog ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk di génn nanguwut a toog loolu nit ku baaxul mënoo ko nit ku baaxul kenn du la du la defal lool loola di acte bu rafet ren jii ci màggal bi sëñ Moustapha defee tournom bi fii ci Italie ñëpp xam nañ ne fépp fu mu dem ak taalibeel dong don dong la fay wane ci image yi te nit ñi doo fu ñu jënd jàppale ñu ngi ubbi seen i bët di xool xoolal li ko yàlla jox ci mbooloo mu jël daraja teg ne jël sañ tubaat teg jël Cheikh Modou Moussa teg jël sëñ Cheikh Mbacke teg jël sëñ Mbacke Soxna Lo teg loolu ku gëmul sëñ Touba amul taalibe mënuloo ko xoolal ni toog ca kaw neexee ak nit ñi niñ koy jëlee nga xam ne dañuy xëccal seen bopp daraja daraja ñëw ba ci yow ne la maa ngi nii nga jël ko ne ko sëriñ Tuubaa ma la gënal lan la mat laa ci suuf toog ci wane ne la ak taalibe rek moo ko ñor kon la maamam waxoon ne man lu dul ak taalibe taalibe ma ko gënal bu ma yéesul ci taalibe it bu ma gënee suufee ci taalibe it na ma leer na yéesu ci taalibe yi te sëñ Tuubaa nabal ma sama taalibe Cheikh Modou Moustapha wax na loolu loolee ca la sëñ Moustapha Mouhamed bi di dox di dem yéen gis ne biiru tukki bi fépp fu mu dem image yaa ngi di ko xool ci suuf lay toog te jëkkiwu ko ren lu mu yàgg def la kon kooku leçon bu muy jàngal ñi mu àndal la kon ñi mu àndal jëyu leen ndaxu leen mi ngi leen di dimbali ba pare it digal leen ñuy bennoo muy la am solo tam maamam nekkoon ci muy suñu Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bennoo ci waxtasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu waaye innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum ñu gis na saa su ne mi ngi soññee ci bennoo ndax bennoo gi soññee gi moom moo ca jiitu ñëpp ndax waxtu jot yaa ngi ko gis muy dugg ci kër kilifa diine yi dem di siyaare te loolu la sëñ Modou Moustapha dénkoon waa këram ne leen njabootu sëñ Touba jii na ngeen xam ne ay bàyyi ngi ci ay mbokk ngi ci na ngeen di seetante di dimbalante ndax yoon yoon seetante yoon dimbalante la loolu yoon jàppalante la loolu sëñ Moustapha Mohamed nii gis naa ko mu def ko budul benn budul ñaar te kàddoom fu mu jógee mooy delloo nit ñi ci sëñ Touba kon kooku faalewul alal liggéeyal sëñ Cheikh Mbacke liggéey bu rëy boo xam ne si kenn wérantu ko ak li muy def ci biiri bokkam di ko def ci njabootu sëñ bi ci alal ni mu neexee ak ni mu sëfe ci nga jël ko sëñ bi attan koo partagé ak say bokk ak bokki jullit ba pare téye saw làmmiñ ndax loolu sëñ Thierno Mbacke Gallo Gallo wax na bu dul benn du ñaar kon kii def lu baax wa amma bi nihmati rabbika fa hadis man lam yaskuru naasa laa yaskuru naas laa yaskuru laa kon loolu moo tax ma jël initiative jëlaat sama kàddu ndax ku ma gis nga bëgg sëñ Touba jàpp sëñ Touba te li ma yéene ci Touba ma gis nga nekk jëf dama koy wax ba àddina sépp jëm di ko dégg kon loolu yi laa xam ci moom ba màggal gii weesu li mu jël ci ay xar jël ko ci ay ganaar teg ko ci ay oto andil ko sëriñ Cheikh moom sëñ Aliou Mbacke ndax moo wane lam lam ko defal mais ña ca des bu ñu ko wanee woon da xam ne dajal na këru Darou Khoudoss gépp noppal na ay maamam noppal ay baayam noppal xalifa général du Mouride ba pare nag li ci yéeme mooy fépp fu ñu nawe nit ci juddu da nga fa fekk sëñ Moustapha Mouhamed nii dana am lu ma leen ci limal tuuti. ci diggam ak ki nga xam ne mooy Sëriñ Muntaxa xalifa général des mourides seen ñaari maam ñoo bokk ndey ak bàyyi seen ñaari maam ñoo bokk ndey ak bàyyi danaa ci ñëw leeral ci laata kaset bi du jeex ndax tey boo demee ci mbokk démb dem ku ñuy wax asta tam nga xam ne moo jur kuramaam kuramaam jur faali siise faali nag moo jur ki nga xam ne moom la ñu ko ma jigéen taal ma jigéen taal bi mu demee kër muttu fa laa fa am ku ñu wax Koura Touré Koura moom moo jur ku ñuy wax Mbéri jàng Mbéri Diagne moomu nag ci la dajee ñu bay ndax mbari Diagne moo jur Aminta Mbiru moo jur Fatimata Mbiru moo jur Joor Mbiru moo jur yàlla Mbiru moo jur Roqaya Mbiru Roqaya Mbiru moom yi moo jur waccitloo ak Mouhamadou Makhtar Roqaya Mouhamadou Makhtar Roqaya la jur soxna Aminta Lo mi jur sëñ Abdoulaye Jaxate waccitloo jur soxna Fatma Cubb mi nga xam ne moom moo jur sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ Cheikh Mbacke jur sëñ Mbacke soxna loo sëñ Mbacke soxna loo jur ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Moustapha kon benn nga ñëw ci ki nga xam ne moom la ñuy wax soxna Fatimatu Mbirou nga xam ne moom moo jur sëriñ Alsane Diakhaté sëñ Alsane Diakhaté soxna Xari Gumba soxna Xari Gumba jur soxna Bintu Diakhaté soxna Bintu Diakhaté jur sëñ Muntaxa kon xam nga foofu ji daje ndax boo nee Mbirou Roqaye Mbirou soxna Fatma sëñ Cheikh Mbacke sëñ Mbacke soxna loo sëriñ Moustapha Ndiaye nga ci teg waaye boo ñëwaatee ci roq yi mbiru soxna matu mbiru mi mu bokkal ne ni Alsan Jaxate soxna Xari Gumba soxna Bintu Jaxate sëñ Muntaxa ñaara ngoog mu daje ak sëñ Muntaxa nga delluwaat mu dajewaat ak sëñ Muntaxa ba tey ci mbiru jàng ndax moo jur yàlla mbiru mu jur soxna Xari Jang Jóob mu jur soxna Fatimatu Maam mu jur sëñ Basiru mu jur sëñ Muntaxa waaye noonu it la bokkee ki nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Bombali Mbàkke nga xam ne boo diisee ci mbiru jag moom da naan moo jur aminta mbiru aminta mbiru jur daam aminta daam aminta jur roqaya Touré roqaya Touré moom yi moo jur soxna aminta Mbàkke mu jur sëñ Cheikh Bombali kon dàtt boobu ñoom ñooñu ñëpp foofu lañ daje muy ci wetu muttu fa laamaan Touré boo dikkaatee nag ci wet gi nga xam ne mooy wetu njobb gi kër maa dàgga de génn sàbbu bi fa ki nga xamante ne si mooy ma jigéen taal demee am fa bere sàmb bere sàmb dem Valence am fa soxna Fatou Touré Fatou Touré moom yi moo jur Mariama Jaxate ak Fatou Jaxate ak Salimata Jaxate foofu nag dajee na fekk ñu baree bare dajee na fekk sëñ Cheikh Sikap mi nga xam ne moom mooy doomi sëñ Saliou ambassadeur ndax boo waxee ne Mariama Jaxate nii Mariama Jaxate moom mu jur soxna Sooda Silla ak ki nga xam ne soxna Fatou Silla léegi soxna Sooda Silla moo jur soxna Mariama Jaxate mu jur soxna Fatou Mor Touré Fatima Touré mi jur soxna Paala mu jur Serigne Cheikh Cheikh waaye boo dir si waatee ci Mariama Jaxate ne moo jur Fatou si la moo jur Absa Jaxate Absa Jaxate moo jur Mamor Bayja ci tiib Mamor Bayja moo jur soxna Khadija soxna Khadija moo jur sëñ Moustapha Ndiaye kon dajee nag ba tey ay rakam nga dir si waat ci ki nga xam ni mooy Fatou Jaxate mi bokk ak Mariama Jaxate maam yi sëñ Moustapha moomu ne moo jur Maane Gajaga mi jur Fatima nag mi jur sëñ Madiba la kon foofu ba tey daje na ko sëñ Madiba Sylla ndax seen ñaari ma bokk ndey ak baay nga biir si waat ci ki nga xam ne mooy Salamata Jaxate foofu daje na ci ki ñuy wax sëriñ Abdoulaye Jaxate mel na ak ki nga xam ne mooy sëñ Muntaxa ba tey daje nañ daje nañ ci wet gële daje ci wet Salamata Jaxate moo jur soxna Fatou Touré mi jur Amin Asta Degen mi jur sëñ euh, soxna Amin Talo mi jur sëñ Abdoulaye Jaxate waaye Salamata Jaxate ba tey moo jur Fatou Touré mu jur xëri ñaan mi jur xëri gumba mi jur soxna bintu jaxate mi jur sëñ Muntaxa kon kooku nit ku baax la li may ñaan daal ci barkeb sëñ Tuubaa ak lu ma am ci sëñ Tuubaa maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér ndax bépp murit bu sëñ Tuubaa saxol sedd ci moom nga bëgg yoon wi di continuer ci jàmm akuk dal ak njàngaleem sëñ Tuubaa jàppal sëñ Moustapha moom sëñ Mbàkke Mouhamed ak foo mën a jébbalu nag foo mën a jébbalu ñëwal nga jàpp ci ndax njariñ li moom bari na waaye nag li gën a yéeme mooy am njariñ ba pare te saw làmmiñ du ko tudd loolu mooy def te yàlla tax te du nit kuy puukare te lépp lu sëñ Tuubaa digle ci jàng ak jàngale mboolem fu mu yilif Daaru Salaam ni boo jëg fu mu mën a doon boo fa demee na nga fekk na la sëñ Tuubaa digle ma nga def na fa dara def na fa jàkk di juma di juma di julli woyofal boppam toy jël addina lem ba mu jekk mu sànni ko ci gannaaw di doxal ak nit xoolal jamono ji muy rëjee ni politique bi mel kenn ku nekk summi sa mbubbum kilifa dem di ci dugg mbooloo mi ko yàlla jox mu am ngor gu day ne jo delloo leen Sëñ Tuubaa du du dox mukk ci gis loo xamante ni mbooloo mi àndal dinañ gis ci moom loo xam ci dana tax ñu dem di màtt seen baram di tax amul xalifab sëñ Cheikh gërëm na ko xalifab Cheikh Moustapha gërëm na ko njabootu sëñ Touba gi ñi ñi nga xam ne ñi ngi ci siraatal mustaqim ñépp a ko gërëm dem na poroxaan gi bu dul benn du ñaar dem geloo ngal gee bu dul benn du ñaar mu ngi doxum mbokk mi ngi liggéey mi ngi jàmm yàlla mi ngi soññee lu baax mi ngi koy digle kon nag loolu mooy tey li nga xam ne indiloon nañ leen ko ci bëgg koo partager ak yéen te xam ne des na yeneen yoo xam ne war na ko indiwaat ci jëmm jooju di Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy sama doomi xarit bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne sama jëngal bi may ubbee sama waxtaan mooy Moustapha Guèye nii di taalibe Serigne Moustapha Massamba di soppeeku Serigne Mbacke ma maam soxna loo Diop Taïf loolu ku ma te waxantuwuma bëgguma ku ma ci neexal bëgguma ku ma ci gërëm damay wax rek te yàlla tax wax te yàlla tax nag laay def seetuma ci ku may gërëm seetuma ci ku ma wax loo xam ne ci waruma ko wax naa sëñ Touba bëgg naa sëñ Touba li ma yéene ci Touba di gis nit muy def lu ko naqari ma taxaw danoncé ko ba ñëpp yëg bu ma gisee lu baax loo xam ne si ka ca war a nekk ma nga ca nekk te mat kilifa doon kilifa danaa ko wax devant public ba ñëpp maa si ko déglu kon daal lii na leen leer na leen na te xam na tey ci bii laa nekk tey ci laa nekk ëllëg keneen ku ma ko gisee danaa ci wax lu baax waaye nag tey ci moom laa tàmbalee te am na ñeneen yu mel ne moom it ñoo xam ne ñu ngi ci yeneen kër yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh